غفور خالد عن سبيل الله وإذا إذا هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبصر بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وحد الله حقا وهو عزيز حكيم خلق السماوات خلق السماوات والأرض بغير عمل تلوناها والها في الأرض رواسي أن تميد بكم وبش فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فانبرنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في الضلال مبين ولقد آتينا لقمان حكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني خبير ألم تر أن الله يريد ليلة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل متبعوا ما وجدنا عليه أن أولم كان سيطان يدعو إلى عذاب سعير ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استحيا يا بني إنها إن تكن سهل خبة من حد فتكن في سهرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله من الآيات فالخبير يا بني أخم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من عذاب الأمور ولا تساهل عبدك للناس ولا تمسي في الأرض مرحا لا يخيب كل مضطر فخور وقصد في مسك وعر من صوتك إن أنكر لصوت لصوت الخمير ألم ترى أن الله سهر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبح عليكم نهمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغيرهم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا خيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولم كان شيطان يدعو إلى عذاب السعير ومن صدق الله العظيم سنخام وغير برمنا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 فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون زكاة وهم بالآخرة هم الكافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الأجر غير الممنون قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الله في يومين وتجعلون له عندادا ذلك رب العالمين وجعل فيه رواسي من فوقه وبارك فيه وقدر فيه أقواته في أربعة أيام سواء لسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له وللأرض أحتياطا أو بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرقيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد قق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أهلالا فهي إلى الأسفار فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأحصيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرا وغزي الرحمن بقيم له مغفرة وأجر كبير إننا نحن نغيي موتا ونكتب ما قدم وأثر وكل أصيناه في إمام مبين واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون إذا أرسلنا إليه اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بطر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا تعيركم معكم آية ذكرتم بل أنتم قوما مشركون وجاء من أصحى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومقتدون وما إليه لا يقتلون الذين فطرني وإليه ترجعون أتعرض من دون آلهة إن يردني رحمن بدر لا تغني عن السماوات سيئا ولا ينقذون إن إذا لفي دلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعوا قيل أدخل الجنة قال يا قال يا ليت قوم يا رب ما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بال من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيقة واحدة في زام قامدون يا حسرة على عبادي ما يأتي من رسول إلا كان به يتزون أولم يروق ما أغننا قبل من قرن وأني إليه راجون وإن كل لما جميل لدنا مدبرين وآيات الله الأرض ميتا وآياتنا وأردنا من أبل فمن يأكلون سيد خادم لو غير فرن داميانو جاغلو تانو إذا زاد ما ودك ربك وما yeah. سرغ مكيد سمين رب العالمين نحار المدير ربهم لم يرفع قلوبنا عن المير آمين مدكر loola dafa fees Souleymane Malick Gueye moo ko jox kado Moustapha Ndiaye moo ci topp moom it ci mokkal la ki koy jox kado mooy sunu yaay soxna Pape Diop moo koy jox kado bi sunu yaay soxna Pape Diop moo koy jox kado bi ñu yaatal Moustapha Ndiaye bu gaaw Master Ndiaye moo ci topp na jege maam Cheikh Ibrahima moo ci topp na jege maam Cheikh Ndiaye na gaaw ki koy jox kàlla bi mooy seen yaay daara soxna la ma fay moo koy jox kàlla bi maam Cheikh Ndiaye soxna la ma fay moo koy jox kàlla bi sëñ Xaadim Gaye Ndiaye moo ci topp na jege mu jege sëñ Xaadim Gaye Ndiaye Serigne Khadim Gaydel Ndiaye jaatal leen ko mu gaaw ki koy jox kàddu bi mooy préfet Soxna Ndéla Tall moo koy jox kàddu ko mu ñëw ki ci topp El Hadj Badiane na jege moo ci suñu sëriñ Baye Sëriñ Ndey moo koy jox kàddu bi sëriñ Xaadim Pène moo ci toog ñu ñëw yaatal leen ko mu gaaw sëriñ Xaadim Pène ki koy jox kàddu bi mooy sëriñ Cheikh Ngédé moo koy jox kàddu bi Xaadim Pène sëriñ Fallou Gueye mooy Lamine Aïssa Ndiaye moo koy jox kàddu gi waaw. Ah. sëñ Khadim Bey Lamine Aïssa Ndiaye moo koy jox kàddu gi. ce soirée moo ci topp nañ ko yaatal mu ñëw ce soirée ki koy jox kàddu gi mooy soxna Asou Diouf. moom moo koy jox kado ci turu Bagdad gépp nag alaaji loo mooy joxe kado bi jërëjëf Guèye mooy joxe kado yi noonu léegi nag ñett ñi nga xamante ni ñoom ñoo wàcc ci turu sëriñ bi sëriñ bi lañ koy jox. moo leen koy neexale muy Cheikh Bombali ak euh, Serigne Cheikh Ndiaye ak Ousmane Ndiaye lépp Serigne bi doxal ñu leen ko ñoom ñett ñii ñoo doon duyoo di tari suratul Baqara ñoom ñett yéeg Serigne Cheikh Ndiaye Serigne Ousmane Ndiaye jërëjëf jëf kon nag kada yaa ngi noonu yàlla nañ ko teewee déwén te mu gën fee bari ñu ñaanal ñëpp Serigne Khadim Lo koy dem yàlla fi ñoom ñëpp la xam waaye ñu des ci ñoom amuñu yi ñëw ci ci jàng xam ah xam nañ ko suñu xaal ñoo koy def borom xam-xam yi ñëpp la doom soxna yi ñii ñii li ndax sa jukko ju rafet xaal li nga gën a rafet mooy jukko sa jukko nit mën na dégg suñu xaalis di dégg suñu xaalis ci mbaax bi waaye ku toog yow as ndiir ba yem la dootu la baax loolu te doo soppee ko nii nga mel rek ngay mel waaye si yow ñaari maa yëpp wala yëpp waaye ku sopp si ko arrêté na ba loolu ñu mën ko jëm ragal juróomi laaj la si xaalis loolu ngay def juróomi laaj la ñëw di def yéen ndax dina ko gën a bëgg ci yéen waaye dina ko ñëpp ay wala dina ko fekk waaye fekkoon nañu ne yéen li nga xam ne bergerie la mooy mooy gën a daw bergerie mooy ñëw ci pour les grands jaaxal ñëpp sant bi nag taalif waaw gërëm nañu ñëpp gërëm naa ne yaa ngi doon te ànd ak lépp li bàyyi Mor Diagne wax rek yow yaa moom alquran yaa doon alquran yaa xam alquran maam joo am daara am maam joo xam alquran laa am Serigne Moussa Ba lay sa baay wàlliw la Serigne Abdoulaye Issa sa maam wàlliw la Cheikh Ibrahima lay sa maam wàlliw la Serigne Moussa Ba Gaynde Kouthia Koumba Siré Kouthia Koumba Daaro Kouthia Koumba Baalo Kouthia Koumba Sayid Kouthia Koumba Mamna Kouthia Koumba Anda Seck Kouthia Koumba le Baye Fall Ndam Noobu da Ngaamu Salaalo Koki Ziyaare Touba Tawfeex Pura Peta Bagdad Borom Ndam Kajoor Bawol siin saalum Fuuta Waalo Jolof bu ci sëriñ mën a ne ak tarixa bu mën a bokk Matar Ndumbe Diop sama ma ko jàngal moo jàngal dem Matar bu sëriñ Ndaam Matar Naar bàyyi ko Louga Youssou Mbengue bi ñu ngul may asu mbéy topp may asu mbéy dara maa baax bu desina dara maam sëriñ Longoor sëriñ Bekkeet ala asa nekk teen ngeen ma ko rek mbaa kon nas bu ko kayal naar mbàkke mbàkke bàyyi baaba ko ma kay sëriñ Ndaam tawa kaay ci ginnaaw lu ko am kon yaay borom daara yaay borom alxuraan Abdoulaye ba léegi waa sopp na bi ñu jógee ba def kaar mooy borom nuróole yi ak waa sopp Serigne Fallou ñoom ñoo sant si Serigne bi ci taxaw gi mu taxaw loolu ëpp naa la waaw bàyyi lay kay di borom daara moom it ñu ko xam ko moom teewlu yi su ko defee dañu jëm ci kàddu yi Serigne dafa wax ni waxtu dafa jot su ko defee ñu tënk kàddu yi rek su ko defee dañuy njëkk a jox kàddu Serigne Souleymane Seck borom xaas su ko defee moom mu joxe ci ay kàddu su nga fay ñu yëngal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته danaa bu nu sante borom bi waaw bokk asalaamaaleykum caminhando. nee fa mu jaaroon ngay jaar waaye waroon naa nee na nag li muy wund mooy kii nit yàlla la góor yàlla la waaye nit ku baax la nit ku tabe la nit la boo xamante ne amul xeet te nee na képp ku muy julli rek bëgg nee sëriñ bi nee na kenn gi nee na fii la toogoon daaw ñaanal ko moom mii yàlla ko yàlla yu ko wér yàlla yàlla dëgg dëggal taxawaayam te yàlla bàyyi ko mu ñaan gi toog dëgg ne fii la ñu daje woon daaw ñaanal ko nee na mu ngi dellu waa ji ko ko ñaanal atam yi bëreegul waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla nag fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool dëgër te yàlla dëgg ko tax dëgg wér nee na nit ku baax la nit ku tabe la nit la koo xamante ne ku ne war na koo ñaanal ndax taxawaay bi mu am ndax jikko ji mu yor ndax jëf ji muy jëf ci diine kaani ko en heen goto fof ko joom ko joom duɗal ko joom qur'ana kolli ko o wona koɗo e diine heen o wona koɗo e alqur'ana o wona koɗo e moƴƴere ne tewtigi xaadim nee na lii nga am lan moo tax ñëpp bég bég ci yow lan moo tax ñëpp bëgg la lan moo tax ñëpp fonk la mooy yow loo am bokk nga ko nit ñi lu nit ñi am nga bàyyi ko ñoom loo am nga bokk te nit ñi lu nit ñi maanaam am nga bàyyi ko ñoom moo tax ñëpp bëgg la ne sëñ xaadim Thierno nee na yàlla fi yàlla bàyyi nee na mu ngi ñaan sa sutura yàlla fa yàlla yokk nee na aajo ak aajo yi maanaam aajo boo am تبوها نوبك يلا يلا سبحانه وتعالى فاتو نانا مو نانا جيتي ak yitte lépp yàlla yàlla subhanahu wa taala saafara ko tafaj ko du ñu yëg suñu yaram lépp loo xamante ne jàmm la wala la mu ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla boole teg yàlla digal nee na mag mu ngi ñaan suñu borom sëñ xaalis sa barke yàlla def yàlla bàyyi yàgg ndaw ñi itam yàlla yàlla may ko gudd te yàlla tàggatal leen seen yoon tegal leen tegal yàlla bool yombal من الجود فبنوالك أن تنزل علينا رحمتك الواسعة وأن تكفي هوائجنا وهوائج المؤمنين وأن تستر أمراضنا وأمراض المسلمين وأن تحمل هذا إلى آخر الحال سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين ولم لا بعد من الباقي Jangan macam ni juga. Jangan macam ni juga. grand Serigne de Thierno ñoo ngi leen di nuyu baax jërëjëf Thierno Djibril